ñëw nañu fii nga xamante ni mooy géejawaay ci kër gi nga xamante ni mooy adversaire am di Lac de Guiers numéro 2

lay nan lay accès fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di xarañ loo waaye supporters yi nga xamante ni ñoo ànd ak ki nga xamante mooy Lac de Guiers numéro 2 fekk nañ leen fii mooy euh, ful boo xamante ni ful bu am doole la yéen dafa mel ni ay euh, supporteru Lac de Guiers numéro de ngeen. du yomb de gis nga Modou Lo duñ ko may mu xalaat duñ ko may mu xalaat. gis nga maanaam daal bu nee prix bi rek ngeen song ko. dañ koy attaqué dañ koy duma dañ koy daan te balaa ñu ko duma daan ko dañ koy yóbbu ardo ba. waaw léegi tey am nañ ñu xaw a jaaxal parce que bi ñu ñëwee fii tey fekk ñu fi rek de guerre. waaw Lac loolu feem la. ñu fere di ko ñaanal ndam rek incha allahu rabbi xale yi suba ba tey démb si guddi ba tey kenn nelawul. waaw da ngeen a ñàkk nelaw ñàkk nelaw bi maanaam da a bëgg seen ba wala da tiit. ah waaw dañoo bëgg suñu mbër mais da dañoo xam ne dam li dina ñëw incha allah ñu ngi xaar fii incha allah. kooku Lac de Guiers pour cent la waaye yow yow yow supporteru Lac de Guiers moom nga faral. moom nga bëgg soxol waaw lan nga koy wax. mu ñaan ndam mu ñaanal ko ndam. ndam rek. yaa ngi toog fii di xaar ndam li kon. waaw.